Touba royaume dafa and mhm. fii ba naan léegi ne la dafa am lu dafa am lu ko sos. Mhm. li ko sos gënul jàmm yàlla jàng jàngle yar. Mhm. gënul li li nak mok royaume c'est diamétralement opposé opposé boobu boobu suñu toit bi muy ci fi ay royaume la fekk. royaume boo demee dañuy xii di mbaboor ba jant bi so dañuy xalam mhm. teg séddi ay yëf di ko naan day ay nag lekk ci yàpp wa di dund mhm. góor ñi jigéen jaxasoo loolu mooy royaume mhm. j'en vis luxure ko fii léegi nga dégg ñu noddu di la fàttali suñu borom waxtu wu nekk On a drapé donc ça ça n'a rien à voir c'est des projets d'intention. tout à fait euh, euh. même l'islam détracteurs même l'islam am ay euh, <laughs> même pour faire de plus. mais fii moom ay ont yàlla dong nga fi nekk di dund waay ndaw Samba. <laughs> wax ngeen dëgg kay. bu mes amours lu xew. gis nga Cheikh mii du mës a soppeeku xeetu togg gu nekk togg naa ko waaye heure añ rek mu gàddu ay yeram noppi. daldi heure bu ma yekkee sama añ. mu ne mes maa ngi kër Baye Ndiaye dama bëggoon xam lan mooy problème bi te muy dëgg. mais bébé waxal ak ñoom. xam wax leen secret bi coow li coow li lépp xoolal lii la

leen ak jàmm fii ci biir euh, Sénépeople TV wala ñu ne Sénépeople Plus comme ni ñu koy defee fan yi rek euh, ñu ngi ba tey biir Touba pour spécial confidence Magal Touba tey nag euh, ñu fekk see beneen kilifa fi ci biir Touba tey ñu fekk see ki nga xamante ne mooy deuxième adjoint au maire bu Touba tey ñu fekk see koo xamante ne il est ministre conseiller auprès du président de la République tey ñu fekk c'est également président de la commission culture et communication du Grand Magal de Touba. loolu nag bu ñu ko déggee xel yi dafay dem ci euh, Cheikh Abdoul Ahad Mbacké Gaynde Fatma ñu bàyyi ko mu nuyoo ak euh, internet yi. salaamaaleykum wa rahmatulaahi taala wa barakaatuhu. waaleykum salaam. ñu ngi leen di euh, dal jàmm. Mm-hmm. di leen fay. di leen wax ne ñëw seen dëkk. Mm-hmm. ndax Tuubaa dëkk la boo xam ne ñëpp bokk bokk. waaye nag bala ñuy def dara dañuy ziar ki nga xamante ne bii moo di suñu kilifa di suñu lépp. Mm-hmm. di Cheikh Mouhamadou ziar boobu ñu ci dugal mboolem yoon mu dëpp di ci dugal aussi mboolem kilifa diine yëpp di ci dugal mboolem réew bi yëpp di beral aussi ab ziar ki nga xamante ne mooy président comité d' organisation bi di Serigne Bass ak mboolem ñi nga xam ne ñoom ñu seqal comité d' organisation di ñaan yàlla rek am émission bu neex boo xamante ne bii tax a jóg di ngeen ko am te dana jëriñ ci ñun ñëpp ak seetaan Inshallah. merci beaucoup euh, ñun tamit dañuy tënku ci sa ay kàddu dal di ziare kilifa yi nga xamanteni euh, tuddu nga leen fi ñu ngi ziare di di di le remercier nak ci ni nga accepté ñu ñëw tok ak yow jàkkaarloo ak yow ci confidence mais ci benen manière confidence ah même si après dinañ confidence bu bu gëna yaatu. alors tay dañuy waxtaan ci magal gi préparatifu magal gi comme ni nga ko yow yaay président de la commission culture et communication du Grand Magal. Eh, fi ñuy ubbee rek mooy seen tolluwaay actuellement nii ci 18 safar bi. Eh, waaw xam nga magal gi day événement bu rëy boo xam ne àdduna sëpp dañ koy dañ koy xaar. Mhm. mu nekk ci événement yi gën a rëy ci Afrique événement yi gën a rëy ci ci Sénégal. Mhm. ndax bis bu demee ba lu ma juróom million nit. Mhm. di fa di fa daje. Eh, di jóge fu ne ci àdduna si ci biir réew mi ak ci ak ci bitim réew mi bis boobu nekkul bis bu bis bu tuuti. loolu aussi moo tax ba dayoo boobu mu am. moo tax boo si muy laaj ay waajtaay mhm. waajtaay yoo xam ne des ko def ci benn fan des ko def ci ñaar fan des ko def ci ñett fan mhm. li gi bañ commencé waaj yàgg na mhm. def nañ ay réunion yu bari aussi ak parce que état bi aussi daf ci am cër am ci wàll fépp foo xamante ni mbooloo mu toll noonu dana fa daje di ci ëpp di ay sénégalais nga xam ne warteefu état Sénégal moo tax ñu def ay CLD def ay euh, CDD def CRD. oui ba bëgg dem dem nañ def CRD national bi nga xam ne ñu ko defee au ministère de de l'intérieur oui. Euh, ba ñu fa demee aussi ci évaluation yi nga xam ne moom la ñu def. Mhm. nee nañu jege nañ 70 pour cent de taux de réalisation ci besoin yi nga xamante ne bi comité bi exprimé woon na ko ne lii lañu ajowoo ngir màggal maag boo xam mhm. ne jàpp nañ ne en tout cas lu ëpp. dina jaar ci ni mu ni mu war a jaar. Mhm. Euh, loolu nag day fànn yu bari lay concerné. Euh, bokk na ci lu mel ne wàllu ndox. Mhm. bokk na ci lu mel ne wàllu assainissement. Mhm. bokk na ci lu mel ne wàllu santé. bokk na ci lu mel ne wàllu euh, électricité. Mhm. Euh, def ci bokk aussi lu mel ne wàllu sécurité. lu mel ne wàllu communication bi nga xam ne aussi moom la moom la ñu seq. lu mel ne wàllu hygiène donc. fànn yëpp la. waaye benn fànn. donc yooyu nag lay lay lay jàpp boole ko xam ne on est à soixante dix pour cent de taux de réalisation. am na beneen réunion variation bo xam ne dañ ko def ci dernière semaine du magal mhm. pour xol fan la ñu toll mais japp nañ ba ñu àgg foofu li ëpp daal bu soobee yàlla mën nañ ne dana dana yemb dana yemb mais walu assainissement nekk problème bu mag fii ci Touba est-ce que da ngeen ci spécialisé wu carrément parce que gis nañ ne Touba bu bu tawee dafay doy waar waaw xam nga assainissement bi mhm. euh, dë fi ñu nekk nii surtout li nga xam ne mooy euh, centre ville bi lii

ndoxum taw mi. Mhm. mais aussi benn mi wàll nab bi. Mhm. bu dee ndoxum taw bi tey assainissement bi Touba dañ ci yeex jóg. waaw sëñ Saliou teel na ko gis ba am lu ñu ci doon def. Mhm. mais day mel ne lam ko defoon góob ma ne bari na loo xam ne jiitu woon na ko. ginnaaw bi lañ ci commencé liggéey. ci li nga xam ne moom moom la wax tey jii euh, li ñu soxla ci assainissement Touba. di ko manqué deux cent milliards bariwut mm-hmm. kon xam nga comme takku la buñ ko doon xaaj peut-être juróomi xaaj day mel ne benn bi rek lañ ci jotagun a def kon xam nga dafa des waaw des def nañ ci ay station mm-hmm. def nañ ci ay canalisation benn mm-hmm. ren ji canalisation yi fi def day day nekk yoo xam ne day nekk trois mètres sur sur deux de de diamètre nga ne nit sax mën na cee dox euh, kon daal li nga xam ne moom lañu yaakaar mooy liggéey boobu nga xam ne nekk na en mm-hmm. bu noppee dina wàññi jafe-jafe yi nga xam ne yenn quartier yi ñu ngi koy dund. ñu mais jàpp naa ne jafe-jafe yooyu du jeexagum. tant que defuñu mboolem programme yoo xam ne moom la ñu war ci dëkk bi. Mm-hmm. ngir saafara wàllu assainissement. Mm-hmm. loolu nag dafa laaj lu mat comme takku la moo xamante ne bii euh, doo a dinañ ko def ci benn at mooy at mu nekk. ñu seq ci ay jéego li nga xamante ni mooy réalité. Mhm. mooy nit ñi sonn nañ ci ndox mi. Mhm. ci assainissement bi. am na ñoo xam ne ci ndox mi la ñu dëkk. bu tawee seen i kër da koy da koy nangu. Mhm. beneen fànn bi ñëw dellu ko ci. muy fànn nappe phréatique bi. xam nga léegi ndox mi dafa bari li muy taw. loolu tax na ba ci fi nga xam ne ay xur la nappe bi day génn. day génn bu génnee nag. nga ne kon day mel ne ndox mi dala jóge ci kaw dala jóge ci suuf. waaw nag moom. beneen beneen mbir la napp bi aussi am na jéego yoo xam ne ñu ngi ko ci seq. Mm-hmm. def nañ ci lu ban ñaar fukki mini forage ren ji aussi balaa màggal danañ fi doolaat yeneen ñaar. Mm-hmm. mi ngi mi ngi koy woyefal. Mm-hmm. waaye te ba tey jii mbir mu doy waar la moo xamante ne bii buñ ci buñ ci jógu taxaw ci nañ ci war a taxawee. mën naa sax daaneel ay kër. te fi ñu nekk fii fépp li jumaa ji. ci nab boobu la la tege. Hmm. am na jamono armée li côté yu bare bari dañ koo dañ ko tëjoon. Hmm. kenn mënu faa dem. ndox ma dafa nekk noor nekk fan wet mi ngi ne hmm. ndax gis nañ mini forage yi. nekk na solution provisoire. mais am na yeneen solution yoo xam ne bu buñ ko ci defee day nekk des solutions définitives. mais kon assainissement bi ñu ko waxee dëgg la. nekk na ay jafe-jafe yoo xam ñu ngi koy dund. Mhm. ñi kilifa ne ñu ngi ñu ngi seq ay jéego. ñaan rek li ñu ci def rek boo lëgee ñu dolli ki du toll noonu baalu ko ëpp ko defee ci diir bu gàtt yàlla mën nañu suturaal ba jafe-jafe yooyu. bu jox di dana wàññi bu baax. da ngay ngay wax sànq ba tey benn moom muy xur xur ban moo lañ ko mën a utiliser waat beneen ci wolof. a nekk. xur de bon bu dee ci tubaab de dépression xanaa mooy barab bu xóot. boo xam ne. l'église eh, l'époux des day nek ay <laughs> d'accord <laughs> ci ci ci ci parfois day cuvette bon <laughs> uh-huh. alors clé euh, étape clé yi nga commission koy ga garantir. Mm, mm, sont les étapes clés que votre commission suit yi nga maanaam garantir communication bi bëgg a wax waaw. non xam bu dee commission communication bi. oui euh, ñun yéen la ñuy liggéeyal. muy yow ak sa nattangoo yi. Mhm. la presse national et internationale. Euh, at bu nekk. depuis mhm. Covid bi danañ recevoir lu mat juróomi téeméeri journaliste. oui ak ak li ci aju mooy euh, journaliste yeeg caméraman yeeg technicien yi moom la recevoir fi may waxee yow ni tembe mbooleem.

li nga xam ne moo aju ci wàllu li ñuy jëfandikoo ci wàllu lekk muy restauration bi aussi am na ñoo xam ne ñu ngi koy saytu lañ ci war a def lépp def nañ ko ba noppi mhm. kon day mel ne wàllu restauration bi féete na wàllu hébergement bi aussi. féete na féete mhm. beneen étape bu am solo bi mooy lépp lu aj ci wàllu accréditation bi. oui loolu aussi dafa am beneen sous commission boo xam ne moom lañ ko dénk. Mhm. lépp nag day jaar ci xarala yu bees yi. mooy ci internet bi ci lay jaar. fi mu nii. ñu baree bari bind nañu ba képp koo xam ne bind nga boo dikkee di nga fekk ñu defar la sa carte d'accès yi nga war a am yëpp. Mhm. barab ñu toog fu benn barab ku dikk ñu jox la nga dem. Mhm. kër par kër ci mboolem kër yi mboolem kër yi journaliste mhm. beneen volet bi ci am solo. mooy loo xam ne moo jëm ci wàllu contenu yi nga xam ne moom ngeen di soxla. fi ñuy waxee nii ñu baree bari ñu ngi Touba comme yéen di ngeen ñëwee. parce que nit ñi dañuy enregistré à l'avance commence émission yi à partir même du premier safar oui parce que bir makal dafa xat mhm. am na yo yoo mëno ko def wala mhm. bo ñëwé rek événementiel ngay def mhm. topp màggal geek euh, actualité bi côté boobu aussi dañu am ay ay équipe yo xam ay borom xam-xam la ci fan ku nekk xam-xam ci walu diine lu jëm ci mbiri Serigne Touba. Mhm. même xam-xam ci wàllu économie xam-xam ci fan yi. Mhm, mhm. nga xam ne tey képp koo xam ne ñëw nga boo soxlaa rek ñu yabale barab sàngam boo fa demee ñoo ngi danañ seq ak yow waxtaan yi nga xam ne moo ngi war a seq. lépp loo xam ne war ngoo xam. ci màggal gi ci dëkk bi ak lépp loo xam ne aju na ci wàllu yoonu murit. ñu xamoon la ko na nga ko bëggee euh, te dara du la ci fekk. Euh, loolu bari na ay jataay yoo xam ne programme nañ ko ci commune de Louga ëpp na juróom-ñett fukki jataay. yoo xam ne c'est des plateaux. ak ay taabaroon yoo xam ne hmm. dañ koy def kon xam nga aussi loolu takku na. oui euh, leneen nag mooy ne mooy mooy mooy mooy couverture événement ji boppam. Hmm. loolu ñun am nañ suñu këru suñu këru bopp. Hmm. muy Magal TV. boo xam ne moom liggéey bu yaatu yaatu. lay lay def ci Magal gi. mais surtout daal dañuy koy def en collaboration ak mboolem taskatu xibaar boo xam ne yaa ngi ci biir réew mi wala nga nekk bitim réew. te Magal gi. soxna. kon day mel ne ci fànn googu moom liggéey la boo xam ne yàgg nañ ko def tàmm nañ ko. équipe yi sawar nañ ci am nañ ci pas-pas mm-hmm. te roode nañu te mën nañ mm-hmm. ko. gis nañ ko alors pour euh, euh, journalistes yi rek ñooy ñëw am na ay milliers de milliers de de de pèlerins ñuy ñëw su weesoo li nga ñu wax ci wàllum communication yan logistique aussi ngeen teg pour euh, pèlerins yi nga xam te ne wax nañ nag. xam nga ñi ñëw sa ay mérite des million mm-hmm. ñun fii seen du mat juróom million nit. Mhm. cinq millions de ci semaine màggal gi ñoom fi dikk. Mhm. Euh, na am ay gan yoo xam ne mooy ganu këru diine mhm. benn këru diine bu ne Sénégal boo xamante ne bii doo indi délégation. mboolem association islamique yi di ci ëpp. dinañ yabal ay ndaw yu dikk teewe si bis. réew yi nga xam ne am na ay ambassade ci réew mi ci gën a bari. dinañ yebal aussi seen ambassadeur wala ay ndaw ñu kawe yu dikk teew ci bis mhm. am na aussi ay délégation yoo xam ne dañuy jóge bitim réew nga xam ne sëñ bi ci boppam moo leen di invité boppam ñu mhm. ñu dikk fekke si euh, magal gi kon gan ñi moom kenn xamul nu ñu toll loolu nag ñëw dolli ko ci euh, taalib yi nga xamante ne bii dañuy dikk di mhm. ziar sëriñ bi di ziar ay sëriñ def seen ay def seen ay warteef donc loolu lépp aju ci euh, alors par rapport à la sécurité de l'événement. La sécurité de ces fans nous d'abord ci contexte de mm-hmm. contexte sécurité dans le Sénégal une sous région de la bëgg oui euh, donc le, événement bu mën a nous rek. ña nga xam ne mm-hmm. sécurité parce que c'est une responsabilité. Mm-hmm. en tant qu'organisateur. l'état état Sénégal bi aussi le principal oui. partenaire ci organisation événement bi. Mm-hmm. Mm-hmm. ñun ñëpp li suñu yittee moo di nit ñi ñëw def li nga xam ne mooy li ñu war def lépp ñibbaat ci jàmm ci seen i kër. moo tax aussi fànn googu bon duñ di faral di génne ay chiffres. Mm-hmm. parce que dafa am aspect yu sensible. oui mais li wér moo di ne. ci CRD yi gendarmerie day toog. police day toog kenn ku nekk. wax li nga xam ne moom la war a indi ci ay ay nit. yoo xam ne ñooy saytu. sécurité euh, événement bi. Mhm. loolu jàllee aussi armée bi day toog moom itam dina wax li nga xam ne moom la yenn la lan la jël ci ay disposition mhm. ngir moom taxawaayam mat moom surtout taxawaayam ci wàllu santé bokk parce que dañu dañuy def ay ay ay ay hôpitaux la ñuy def lu mel noonu. Mhm. ngir que nit ñi ñëw di ca di ca mën a faju mais aussi lu mel sapeur pompier. dañuy ñëw dañuy ñëw ñëw teew. aussi wax yan disposition lañ jël.

naa léegi ne la presse bi dañuy ñëw di jël si euh, borom xam-xam yi fi nekk. Mhm. loolu tey boo jëlee table ronde yi li ñu def lu mat quatre vingt. ay plateau ay table ronde même am na ñoo xam ne dañ koy def sax ay ay PAD la ñuy def. nga ni defar rek. oui site bu soxla boo ñëwee ñu jox la télévision bu soxla boo ñëwee ñu. yéen yéenay def PAD yi. yéen nga def mhm. di ko di ko di ko joxe. parce que parce que ñun dañuy la presse comme partenaire. absolument bu am solo ci li nga xam ne moom la ñuy liggéeyaloo. Mhm. ñun en fait lan mooy suñu liggéey. suñu liggéey man man ko tënk ci ñaari fànn. moo di ne saytu jëbi màggal gi ba organisation bi tegu ci yoon. waaye nag surtout tasaare sa Sëriñ Tuubaa ba fu mu war a àgg mu àgg fa. donc loolu rawatina ñun ñi nga xam ne ñooy commission culture ak communication. Mm-hmm. ñu lëkkale ñaar yi. day mel ne culture bi mooy ñam bi communication bi mooy bool bi. Mm-hmm. moo tax boole ko mu nekk benn commission. donc kon ñoom noonu noonu la ñuy def. lu mat mm-hmm. quatre-vingts Mm-hmm. danañ ko def bari na aussi ay conférence yoo xam ne dañ ko organiser lu jiitu màggal mm-hmm. bu safar teroo rek mm-hmm. ak ci biir màggal gi ci bis bi ci yoor yoor bi ak ci guddi gi bari na aussi ay kuréel yoo xam ne dañuy ñëw di participer ci événement bi di organiser ay conférences. di ci def yoo xam ne dañ ko en partenariat avec le comité d'organisation parce que comité bi képp koo xam ne jóg nga ngir def sa loxo ci màggal ci anam goo xam ne dëppoon na ak ni nga xam ne noonu la ko sëriñ bi gisee ak ni mu ko bëggee rek comité bi warugaram la mu jóg épaulé la jàppale la bala ngay def nga nga mën ko réussir. Mhm. moo tax c'est programme qui est extrêmement riche. boo xamante ne bi incha allah commencé nañ ko dérouler et à partir du premier safar maintenant day dem di intensifier wu ba ñu àgg ci màggal ba ci suba sa ba ñu def la cérémonie officielle mhm. som ñoo ñaanal ñun ñëpp mhm. ñu joxante waa rendu mhm. déwén ak jàmm incha allah est-ce que mën nga ñu wax un peu sur euh, les partenariats et les collaborations nécessaires avec d'autres organismes et autorités euh, pour assurer le succès du grand Magal bon xam nga màggal gi euh, Cheikh Mouhamed Lamine Bara mu taxawal comité d' organisation. ci ni muy doxee nii jël sëriñ Bass dem ko. comité d' organisation bi moom mooy saytu màggal gi. Euh, en terme de partenariat d' abord li ñu ko mooy y' a pas de sponsoring. Euh, na nag ñoo xam ne dañuy ñëw di def seen cër ci màggal gi. naa la ngay état Sénégal. fépp foo xam ne mbooloo dañu fay daje ci biir réew mi.

xañ na bu defee li am na dañuy ñëw di jàppale journalistes yi. Mhm. lool buñ ñu ko defee comité d'organisation bi dañ ko défal am ñoo xamné aussi dañuy wër di di di distribuer. Mhm. yenn yi di ko di ko jox di ko jox gratuitement nit ñi. buñ mhm. ko défé comité lañ ko défé parce que magal mom lu ci way jappé waaw rek comité bi nga ko nga ko défal mais liberté wër te wër amul genn kër gu ne ci biir réew mi këru liggéeyukaay gu ne ci biir réew mi koo xamante ne magal Touba. lu ci euh, maam do ci yëngatu. parce que <laughs> ay nit ngay wut. te mbooloo fi daje. mbooloo bi aussi dañu am gëm gëm am pas-pas. Mhm. képp kuñ ci seen danañ saxar ci ci sa ay mbir. kon aussi donc jëpp daw. wut si Tuuba même presse bi ñëw aussi loolu moo leen di indi. dëgg la loolu parce que euh, xam nañ ne waxtu màggal. boo génnee leneen lu dul màggal gi. du nit ñi dañ koy zappé dem seetaan ni màggal gi feneen. <laughs> moo tax ñu ñëw confidence màggal. <laughs> <laughs> donc voilà moo tax daal mbir la moo xam ne ñëpp ci mhm. te vraiment kenn ku ne li nga xam ne ngi ci sa di ci sa mhm. rôle. Mhm. yaa ngi koy jouer à merveille. loolu vraiment je peux témoigner. oui alors euh, nan ngeen di euh, assurer euh, équilibre bi entre la préservation des traditions du Magal et l'incorporation d'éléments innovants pour répondre aux besoins et aux attentes sans des participants. xam nga.

dina indi ak jàpp ndal am na su ma jàpp ndal ak jàpp ndal ci nekkiru nit ñi ci ni nga xam noonu ni ñi di dunde màggal gi mhm. te daqoowut ak li nga xamante ne bii mooy li Serigne Touba bëgg loolu on est preneur mhm. tey ñu ngi toog nii nekk ci pratiquement loo xam ne affaire cinéma la ñuy def waaw ah caméra yi wër ñu lu ne wër ñu mhm. ñuy jël ñang na serigne di ko jaarle parce que li daq wut ak na serigne bi mm-hmm. donc dañu am natukay suma le natukay comme tubaab bu gën dégg mel la ni natukay moy dañu am des critères xam ne moom lañu et ces critères là ne sortent pas de la pensée et de l'œuvre de Cheikh Ahmadou Bamba mm-hmm. et tout ce qui est compatible avec cette pensée de Cheikh Ahmadou Bamba mm-hmm. avec les écrits du cher mhm. et qui est susceptible d'améliorer le vécu des fidèles qui viennent assister mhm. au Mangal et qui est susceptible de nous permettre d'avoir une meilleure visibilité mhm. par rapport au Mangal et qui peut nous permettre également de mieux vulgariser les œuvres du chair, Je veux dire, on est preneur. Mais les critères d'évaluation, d'adéquation, c'est l'œuvre de en Bamba la pensée du chef, ce sont donc les écrits du chef, et c'est ça qui est primordial. Et ça, il n'y a pas, il y a aucune inadéquation par rapport à beaucoup de choses maintenant qui se, qui se déroulent sous nos yeux. Mmh. Alors, euh, euh, euh, récemment, gis nañ Touba yàgg na sax une interdiction yi yàgg interdiction mais ni ni dafa mel ni dafa y a tar ba tax na indi polémique. Euh, ci ci réseau yi ñuy wax ni c'est un peu exagéré ñuy ñuy dóore par ci ñuy wataate par là loolu yow lan nga ci war a mën a lan nga ci mën a xam nga xam nga Touba d'abord day dëkku jàmbur. Mhm. Touba kër la Touba kër la kër la ki zaahir kër la ki baatin d'abord su ma nee kër la ji baatin moo ne sëñ bi bu ñu koy sanc mhm. dafa ñëw ba ci suuf soo xam ne kenn mësu koo yilif mhm. ñëw sanc ko loolu mooy Touba boo jëlee tey Touba géographiquement. dafa nekk ci diggante Njàmbur Jolof Kajoor Bawol kenn mës ko yëlif moom ngeen di wooye yéen no man's land si kenn mës yëlif donc foofu la sëñ bi sanc bi muy ñëw ay rabi àll la fekkoon ay gaynde rabi àll ji gën a soxot ak àll bu lëndëm tëriis mu gor ko moom waa këram dëkk fi mhm. kon sëñ moo ko moom Nous sommes en 1927 trois ans après le 11 août 1930. Mhm. Cheikh Mohamed Moussa, le premier Khalif général des a gagné 5 millions de francs baaje de de faire de la ville de la ville de, de Touba un bail. Mhm. ñuy dox di dox dox def titre ci zaahir ak ci baatin uh-huh. lim nekk kër jàmbur nag ñi nga xam ne ñoo ko séq uh-huh. ñoo ñëpp kenn ku ne dafa jël wàllam bàyyee ko uh-huh. kii mag nekkal fi Serigne Touba di Serigne Touba te ji mu Cheikh Mouhamadou Mountakha kon day mel ni kër gi li muy yaatu yaatu Cheikh Mountakha dong moo ko moom rek moo ci am sañ-sañ moom benn kilifa la am keneen bëggu fee doon leneen lu dul doggab Cheikh Mouhamadou Mountakha moo tax ba bu ne lii laa bëgg dëkk bi loolee moo fi am. te lim fi bëgg du lenn lu dul lu lislaam gërëm. lu lenn lu dul li taxoon Sëñ Tuubaa sanc ko. muy jàng jàngale jaamu yàlla yar. li nga gis lépp daa wàll si. parce que si ay doomu aadama bu ñuy nekk fi barab di di di dund. baax na mu am prospérité pour que nit ñi mën nekk daa de bonnes conditions. Mhm. mais bu ñu fàtte ne la ko sancoon mooy jàng jàngale. yar ak jamu yalla señ bi nag lolu fi bëgg rek. Mm-hmm. jam mm-hmm. rek mm-hmm. nak dem na ba jaxaso dem na ba jaxaso motax rek kep ko xamanteni bi yene nga sa jabot jam lay lay nak nga aktu len delo ci len leen len ne li mooy yoon wi. lola ñom mooy sooy parce que le sétan nañ ci dem. moy moytuwul ci guddi lañ jëm. te su boobaa yow mi seen kilifa yow rek yaay sonn. la kon sëñ bi mom mo xam li gën ci ñun. ndax moom mooy gis ñu lu ñu gisut waaw moo tax mu gàttanu ne déet dellusiwaat leen ci yoon sëñ bi boobu taxawaay la mm-hmm. loola naka jëkk li mu fi tere ni bi ñu ko fi wax daawaati jéeg 2019 mm-hmm. ci kanam le président Macky Macky Sall mm-hmm. booba dañoo génnee lettre boo xam ne Cheikh Abdoul Ahad moo ko bindoon doomu sëñ Tuubaa yëpp signé ji la ko ne tere nañ fi lii tere nañ fi lii tere tere yooyu rek nag moom la sëñ bi di réitéré li ci bees mooy Baay Faal mooy Baay Faal yu ñu ko dénk. waaw muy ñoo xam ne seen maam ci ñi gënoon dëkk bi la bokk. waaw mu ne Cheikh Ibrahima ci wetu sëñ bi. Mhm. di ko aar ak wattu ak di ko jàppale. Mhm. ci Zahir mosu nangu dara jëm si bi tey jii nag foofu lañ delluwaat yëf rek mais Baay Faal yaa ngi noonu sëñ bi tere na fi lii léegi nag moom ku ne yow yaay xool est-ce que nangaate ko ci yoon baax na. Mhm. nangu ko teg ci yoon waay waay te ngaa dox tuuti rek génn dëkk bi <laughs> loolu jàmm la. waaw loolu ñu <laughs> teg ci yoon wi. teg ci yoon bi nag léeg lekk mën naa am xañ na lu ñu luy nuru lu ëpp mais aussi ëppul lenn lu parfait à cent pour cent <laughs> foo dem même dans la police. Euh, disons, les plus sophistiqués mm-hmm. les plus mm-hmm. élaborés mm-hmm. Hein, les plus compétents du monde, parfois il y a des bavures policières. Oui, absolument. <laughs> parfois mais si nous focalisons sur quelques incidents par rapport à des milliers de cas yi nga résoudre Avec rigueur Avec compétence Avec nañ ko war a defee. problème D'accord alors euh, euh, euh confidence B

alors nan ngay allier ni nga nekk ni parce que yombul jot amoo leen ko ak vie de famille bi nan lay demee loolu. waaw de xam nga àdduna. Mhm. loo gis rek organisation la la. léegi kii dañuy organiser wu. Mhm. Euh, responsabilité sunu borom moo ko jox yàlla moo koy dogal. di nga sabablu. Mhm. yàlla mooy dogal diw dana nekk lii dana nekk lii dana nekk lii bu loolu amee nag yow yaay xol ndax ngay organiser nak maintenant sa aduna mhm. ba li nga xamné moy mooy sa warteef li nga xamné moy mooy devoir mhm. même lu nek nga samonté ak mom ba do gañ sa bop do gañ aussi sa morom denk nañ ma lu jëm ci wal organisation magam bi di jëm ci wàllu communication ak wàllu culture bi mhm. muy bok ci patch ci ëpp solo pendant un mois duma gën dëkk bi pendant un mois duma ma tëj sama téléphone Pendant à la disposition de la presse et de l'organisation. parce que waxtu loolu laaj. Mhm. bu jàllee ma dal sama mhm. oui je pense que c'est pas très compliqué. non du tout <laughs> bon on pense hein <laughs> on pense alors tout euh, euh, euh, Touba lépp dafa particulier hein? tay bu doon euh, feneen mun nañ ne dañoo voté kii gagné affaire Non, non. pour nga nekk président commission culturelle et communication bi si yéen nan lay demee. amul lu ñu voté amul lu ñu bëgg. Mhm coobare seigne bi moy exprimer la volonté du du marabout. seigne bi mo jël seigne Bass ne yow la def président comme d'organisation seigne Bass dem ci famille yépp nak ba famille seigne Touba muy bokki Une moy Cheikh fa ay nit. xam critère. de sélection lay sélection équipe day mel équipe moom mun doon am équipe bo xamanteni bi bii gën la. Mhm. ndax liggéey mi ngi liggéey mi ngi jaar ci yoon nit ñaa ngi ciy bëgg waxtu wala nit ñaa ngi koy wax te waxtu wala sëñ bi mi ngi koy renouveler confiance. confiance di bëgg ci li nga xam ne mi ngi koy doxal. Mhm. mais képp ku ne ci comité d' organisation sëñ Bass moo tànn moo la ci euh, moo la ci dugal. Mhm. alors souvent dañuy wax murit ndigal yow tey soo ma doon définiral moo ndigal lan lay doon. ndigal de mooy euh, jëfee bàyyi bàyyi tere luñ la sant nga def ko luñ tere nga bàyyi ndigal gënul foofu ndigal bi jiitu ta mooy ndigal bi nga xam ne mooy ndigal suñu borom bi nga nekk jullit mu ne la bu waxtu julli jotee na nga julli bu woor jotee nga woor bala ngaa nekk julli nga wax ashhadu an laa ilaaha ashhadu na nga dem nga aji Makka na nga génn asaka loolu mooy ndigal suñu borom bépp ndigal bépp ndigal boo gisaat ci lislaam maanaam man nga man nga ne moom day topp ca ndigal yi nga xamante ne ñun yàlla la jikko seqal lekk des nag mooy nga am kilifa kilifa goo xam ne moo la gën a xam moo la gën a jege sa borom mu lay dimbali di la teete di la jàngal naa la moytu lii moytu lii lii baax na xëy na lii baaxul mu loolu wax léegi ñu ne ci jamono joo xamante ne bii réseaux sociaux yi ñoo ñu entouré <laughs> ne jamono joo xamante ne dafa dafa lëkkaloo dafa jaxasoo culture ñeneen di fi ñëw lu bon tasaaroo ci àdduna si <laughs> nga am kilifa gu mel ne mu ne la bul fecci dëgg la sol lu bon fàttali li li nga xamante ne maanaam mooy ab jullit naka la war a mel comportement loolu mooy ndigal li <laughs> kon danaa la bul def lii lepp lo xamni ñu ko téré tuba rek né la ko téré mm-hmm. ay itam sant li nga xamni ne li nga wara def mooy leen jamm sa borom bo mané aji bak nga aji màkk. Mm-hmm. waxtu julli jotee na nga julli ko bi ñëwee na nga woor na ngeen di dimbulenté mm-hmm. na ngeen di laabirante na ngeen fokk xam-xam. na ngeen fokk seen ay wajju gën lool. li rek mooy am kilifa. te nag dañuy fa di wax ne ku ku amul kilifa ko ne seetaan di sa kilifa. di sa kilifa.

c'est ça qu'on entend donc hein, hein? non man kay sama gis-gis amul ah, solo. waaye bah, man ko lay <laughs> hein man ko lay non man sama gis amul ah, solo man talibé laa rek. man talibé laa damaa tënku. fi nga nek ni jàpp nga ne yaa ngi ci royaume. Hmm? fi nga nek jàpp nga ne yaa ci royo question la. Bah, man sama tontu man sama xalaat. dama lay non dama ah, lay dama lay dama lay tontu parler fait oui. xam nga yaa ngi tubaab barke démb ba tey. waaw. ah yaa ngi dox ci dëkk bi. Hmm, hmm. yaa ngi jëflante ak ak waa dëkk bi. Mm-hmm. Eh, amul fenn foo dugg bu ndoxatal la fa. déedéet. bunt boo fëgg tijji nañ la ko. Mm-hmm. foo dem ñu teral la. Mm-hmm. kilifa goon dama laa bëgg jël mu ne la dikka. mu ne la ñëwal dëgg la. kon ban contrainte majeure nga dund ki dëkk bi bu lay wan ne ngi ci ab royaume. Mm, man moom dundu contrainte majeure. <laughs> alors donc yow doo définir Touba comme royaume. Touba royaume dafa ànd. Mhm. fii wax naa léegi ne dafa am lu dafa am lu ko sos. Mhm. li ko sos gënul jàmm yàlla jàng jàngle yar. Mhm. gënul lii lii nag moog royaume c'est diamétralement opposé boobu boobu suñu tubaab bi muy sañ fii ay royaume la fekk. royaume boo demee dañuy xëy di mbaboor ba jant bi so dañuy xalam mhm. teg séddi ay yëf di ko naan bàyyi ay nag di lekk ci yàpp wa di dund mhm. góor ñi jigéen jaxasoo loolu mooy royaume mhm. les gens vivent soo ko fi léegi nga dégg ñu noddu di la fàttali suñu borom waxtu wu nekk ku nar drapé sëñ bi dellu si wala ci yoon. nga mm-hmm. tegal mm-hmm. donc ça ça n'a rien à voir amna yo yoo xamante bon c'est c'est c'est c'est des procès d'intention, intention. dit que fait def. Mm-hmm. même l'islam am des détracteurs même l'islam am na ay noon. <laughs> même pour faire de plus. donc loolu rek la mais fii mom ay jaamkat yalla dong nga fi nek di dund ñangale Sëriñ touba nan ngay concilier sa ay en tant que euh, ministre conseiller mais également en tant que deuxième adjoint au maire.

dem ci commerçant bay bay commerce wala menuisier wala wala ka métier nekk ca su màggal mu wala en cas ci comité bi. Mhm. di yenu ay bool wala muy dem di c'est exactement la même chose. il mhm. y a que les niveaux de responsabilité euh, qui diffèrent qui mhm. alors. et puis Sénégal. nous am euh, une très grande richesse. fii ngay gis un président de la république mu nekk président kon c'est le père de la nation. mooy ci kaw ñëpp. waaye day nekk en même temps talibé. waaw loolu Sénégal rek la am. Mm-hmm. donc ça c'est une richesse ça ça veut dire quoi ça veut dire que ne suñu suñu ada, mm-hmm. ak li nga xamante ne bii moo tabax suñu réew. suñu sociologie réew. ça veut dire que ne fonk nañ ko ek ba tay jii rek ni nga am doole. et que aussi day mel loolu moo ñu tee dans cette mondialisation xane xam ne kenn xamatul koo doon ñëpp -hmm et ça c'est extrêmement important ba pare aussi day day day ne mooy aussi l'équilibre des pouvoirs yi nga xam ne am ci amna ci réew mi. Mm-hmm. nga xamné day mel ne koo mën doon am na loo ko ndax am na fa boo fa àggee rek dina am ko ne déet sa waay. taxawal et c'est important. Mm-hmm. et ça c'est la spécificité euh, sénégalaise que moi j'aime beaucoup. Mm-hmm. donc yow boko ci ñi naan euh, diiné ji dafa war a génn ci politique bi. képp ko dégg wax loolu. Mm. amul culture diiné xamul diiné mm lii maa la ko wax te fu la neex waxaat ko ne man maa la ko wax. képp ko wax loolu amul xamul diine amul culture diine. Mm-hmm. amul fenn ndax l'histoire de l'islam. waay parce que man diine l'islam lay wax. foo xam ne prône nañ fa une séparation entre le religieux et le politique. Mm-hmm. l'islam n'a pas de clergé. oui l'islam amul ñoo xam ne dañuy toog duñu yett duñu gor duñu liggéey ñu yor leen l'islam amul loolu. Mm-hmm. imam bi da ngay dem jiite ji boo sëlmalee nga dem liggéey. nga dem liggéey. ñi dàq liggéey ci réew mi mais ci lañu bokk. Mm-hmm. les plus grands agriculteurs du Sénégal ce sont les chefs religieux. Mm-hmm. ñi fi ëpp lu ñu gor ay dëkk ci réew mi service ci lañu bokk. Mm-hmm. da ngay fii Touba ba 500 km 300 400 km quatre ngay dem di gor ay dëkk. di fa def lan di Sëñ Tuubaa defoon fii di fa jàng. di fa jàngale di fa liggéey y yare il faut y aller. donc séparation bu et que tay lolu ñukoy wax mooy ñi nga xam guider. ñu booy génne sëriñ ci champ politique def lu leen neex maintenant ku nangu lolu ya ko nangu mais ko am fulla ta xam sama cas man bama école lan motax fi jàng école ma bokk ñu ay classe bu composition ñëwee maa leen di raw. waaw. am sa am jaar fi ñu jaar fépp ñu dem ba def bac ma am bac ak mention. bac C laa la wax de mooy bac ñu bari si ñoom lajj ñu bari ñoom amuñ mention. ma jóge fi dem dans les meilleures écoles jàngi fa. tout ce cursus ba ma koy def lan moo tey ñu aaye ma ko. waaw dem ba dikk ñoom doo liggéeyal sa réew. c'est parce que dañu bëgg wut ay chasse gardée. waaw léegi nag boo ful fula da ngay lànk. boo amee fula da ngay bañ. et moi cette tradition dafa am fu mu ko jëlee ci gaynde famille laa ko jëlee. il a toujours refusé que que l'on mette à l'écart les chefs religieux dans la gestion des affaires du pays. c'est lui qui a été à l'origine de la création du PDS. waaw c'est lui qui a été à l'origine de la création du PDS. fayal Cheikh Ndiouf am njàngam. Mhm. jaar fan ak ñu baree baree baree bare ci ñu nga xam ñoom la jamonte lool et donc kooku tey jii dans l'établissement disons de la dans la consolidation de la démocratie au Sénégal amna na hmm ndax ki jappel Ablaye wad ba man am limu am xex bi mu pendant vingt six ans ba far ci nguur gi ci loxoy PS loolu kooku am na cër ci fi yi maintenant on veut introduire à ses enfants ne leen amu leen droit def dem leen ngeen non faut arrêter yéen a yéen faut arrêter c'est même pas sérieux mhm. Hmm. mais aussi politique bi parfois day dem ba indi ay tâche ci ci ci ci ci këru diine yi nag du du du politique bonut hmm. ni nga defee mo bon yow man nga politique politique bax hmm. comme aussi man nga bañ politique am tâche ça n'a rien à voir nit bu naré am tâche fu mu ne dana fa am tâche mais gis nga bu ko wurt am xam bopum fu nek lu fa am donc c'est pas la politique en tant que telle mais c'est la personne qui fait de la politique. et la manière dont il il fait waaw. jeex hmm. donc man ko am tâche man ko am ci politique comme man nga ko am ci marché ba nga nekk. man ko am atelier. man ko am commerce man ko absolument donc ça n'a rien à voir donc ça c'est des raccourcis. pour hmm. pour y ait. rek. Hmm. <laughs> xam nga on alors mais aujourd'hui la jeune génération a a bien compris. oui oui oui. avons loolu moom nañ développer parce que comme tay confidence suñu té xamna naa ne moom il faut que ma. jàkkaarloo li li nga xamné moy euh, moy li am solo. Mm-hmm. moy euh, foofa ne. Mm-hmm. na nga respecter les règles du jeu. soo sante bu yobale ci politique. c'est important. ça c'est important. Mm-hmm. soo sante bu yobale ndax fofu dox fa. des règles du jeu donc booy dem diko ko defi da nga yobale dara. da nga xamné ne ngay def boo nekk ci parti politique na nga maîtriser programme parti bi wax tu dois tenir un discours politique bu yóbbaale dara ci yo xamante ne day indi ay amalgame wala day jaxase. <laughs> maintenant amna na ñoo bi peut-être xamuñu loolu mais li ma wax adduna li am solo moy ragni faire preuve de discernement et de retenue. Mmh. dans tout ce que l'on fait. Mmh. bu loolu amé rek tu gênes personne et que voilà do yàq bari. mais mais mais parfois bëgg da ngay dem fenn doo bëgg a yóbbaale sant bi surtout côté politique mais parfois sant bi mun na la porter préjudice wala mu. non porter préjudice ko moom. Hmm. maa ngi nii ñu toog jàkkaarloo nga toog ci kaw ma toog ci kaw ñuy waxtaan. waaw. loolu la sant parce que on est dans un plateau de de télévision ou de cinéma. oui ñu war a toog di waxtaan. dans un autre contexte ben, on ne serait pas assis de, de cette façon. Tout à fait. Moi, li ma la wax rek preuve de discernement ragné. Mhm. barab bu ci dekk ak la mu laaj ak la mu yelloo. Mhm. am fa ce comportement là. loolu nak dafa la yar dafa la jang, mhm. dafa la xàmme et puis suñu borom aussi ñaan ko mu dimbali la ba fo toll ak loma nek rek nga nga xam alors ñu tecc rek ak bijou euh, de safar. waaw kooku day moom day bis boo xam ne euh, day bis bu rëy ci lislaam hmm. bis bu rëy ci Sénégal bis bu rëy ci Afrique bis bu rëy ci dër hmm. parce que sëriñ bi 18 safar laneen nañ ko ko màggalal hmm. lu tax ndax ni ma war a sante sama boroom ci lim ma jagleel ci may yi ma yi ma may mhm. ci coobareem gannaaw boo xamante ne bii dëkku naa ay nattu yu métte métte mhm. métte métte mhm. sama cantu bopp duy ma ci kon maa ngi woon ñëpp ñu sant dama yàlla xam nga kon loolu bu rëy la rawatina ba muy dem mu doon dem ne damay dem ngir ràmm sama ñooñ kon ñun ñu ñoo ko yóbbu woon dëgg la bi mu daal ñun ñun ñoo ci ëpp la kon bu ñuy sant ñun cant nga ñun ñoo ci war a Jitu. Mm-hmm. ñu bis nga xam ne dañ cee goreele mm-hmm. dox ci suñu digënté ak tubab bi mm-hmm. samp ci les valeurs de l'islam samp ci ngor samp ci jom samp ci fit samp ci ak njabar lu lepp de man nañ ko jangati ci bis bi ba muy dem aw fas la war dem jakarlo ak ab armée xam nga kon xam nga fit moom foofu la man ne ak njàmbaar. waaw ngi dem jàqale ko aar booba sax am na ñu ko doon gunge. waaye gunge ba lu ko la yem. Mhm. ñu dem ba génne ko yóbbu gamon mu ne cunn moom dong waaye teewut il n'a pas changé ci comportement am ak nekkinam. Mhm. ak doxalinam ak la mu doon jëf. Mhm. kon dañ ci mën a jàngate dafa bari jàngat yooyu ñu ci man a jàngate nag. moo ëpp moo ëpp di sax ci bis bi ndax jàngat yooyu moo ñu war a inspiré. jàngat yooyu si moo ñu war a niital sunu yoon. Mhm. ba ñu xam fi ñu teg suñu tànk fan la foofu mooy fan ca fokk suñu ba tegoon mooy diine islam loolu mhm. moo ñu ko tax ñëw naa la jàng jàng de yar jaxmu mhm. lépp day ñëw rek dolli ko ci nekk dolleen loolu mooy li nga xam ne mooy li ko li ko taxoon a jóg kon mu bàyyi ko mbakke baali jaar jeewal jaar kokki jaar ndugu dem dar, mhm. dem ndakaaru jël geej gi mhm. génn réew moom dong man na juroom ñaar yaat bi mi dem ñu ne nañ ko yobbu ndax ciowli ak mbooloo mi ko topp wàññeeku mu ñibbi si mi yok ñu ne kon nañ ko yobbu ganar mhm. ñibbi mi ñu bu ko ci di joxe ay permis pour ku bëgg a ziyaare ji indi ko njaareem mboolem njokkuwaat mu gën àdduna tey ci cinq millions de personnes ñoo koy célébrer. kon moom ci dëgg la nekkoon. dëgg la et donc c' victoire de l' mm-hmm. mu nekk ku constant. Mm-hmm. ci ay principe ci ay xeexam ba am ndam li nga xam ne moom la ko suñu borom may. Mm-hmm. kooku foog naa ne. ñëpp ko war a maase sant def yàlla wala su du mhm. eh, nañ ma sant la yàlla kon du du lu ñu puukarewu du lu ñu tiitaroo mhm. dañu rek daje rek ngir sant yàlla mhm. ci may yi nga xam ne may na ko te may yooyu nag wax naa la man ak yow keneen kenn ëpp la dëgg la ndax suñu jàmm yëpp ñu ngi ci biir may yooyu alors mu ngi noonu mooy dix 18 safar ñu war cee ànd santale sëñ bi euh, boroomam comme ni mu ko diglee saa su nekk euh, dañuy wax ne nag euh, sëñ bi wala cheikh bi dinañ ko amaat ci plateau confidence fële na la ca plateau bu mag ba ca dakaar dina ñëw ñu confidence def nag vrai vrai confidence n'est-ce pas. <laughs> incha allah waaye bu boobaa taalibe nañ ma jéggal rek. au cas où <laughs> yi dama gëna xam li nga xamante ne souvent moy xew euh, ci biir confidence sëñ bi dañ lay bay nga taggo wa dañ lay euh, sante di la di la gërëm. Mm-hmm. di la wax ne amu nañu mbégte ci recevoir len fi ci mm-hmm. ci Touba. Mm-hmm. di aussi sante ci jégu yi ngeen def. ndax fan yépp yéen ci dëkk bi. ñëwoon ngeen delu ñëwaat. am lu mat ay bis. di liggéey liggéey bu rafet waajat màggal bi. aussi di tegtale magal bi vraiment jël gën ko def gën ko seen bop suñuy yitte suñuy waaw kon loolu ñu ngi leen ki sant di leen ci gërëm. Mm-hmm. di muy man muy tout le comité d' organisation. ñu ngi vraiment ci seen disposition. ngir jàppandal leen mm-hmm. seen liggéey. Mm-hmm. waaw ñun loolu rek boo ñu fi seen bi tege. képp koo xam ne ñëw na bëgg liggéey jàpp ci liggéey bi rek nañ fexe ba nam ci bëgg a jàppee. mu jàpp ci noonu. sant nañu gërëm nañu. alors ñuy xamal ne ñu ngi ciy jàpp bu baax parce que macha allah ça fait plus de trois jours ñu ngi fii euh, jooy ñu dara. lépp alhamdulilah dafa mel ni ñun ñu ngi màggal déjà ñun ñu ngi màggal déjà alors balaa boobu nag euh, dañuy remercier partenaires yi comme toujours muy ñi nga xamante ne ñooy jàpp ci solo yi souvent euh, muy Adja Abi Thioub mais tey nag euh, sama mag moo jigéen génn du Adja Abi Thioub tey sama mag Ndey Binta Ndey Binta borom VIP Thioub nekk fële na la ci Wakaam numéro téléphone am di 567 30 87 ngeen mun ko woo pour am ci cuub yu rafet yi pour guddi màggal daf ci baax jox leen dig daje ba beneen ak beneen numéro ak keneen.